xaw fu ni mel fàttali la nga bës abonné bi bul fàttee bës kolos bi ngir lépp lu ñu dugal rek kenn du la ko njëkk jotoo dooree ko ci recours bi Ousmane Sonko def laalaale ci ci biir xabaar yi mbirum Amadou Ba ak Bassirou jaxaara Diakhar Faye teewlu leen ko avec Boss Media TV fii njëkke kook mbirum Ousmane Sonko moom jiital Pastef di wuyoo ci Ousmane Sonko moom mi nga xamante ci ni kat ku ñu ràññee la jamono jëfile ci réewum Sénégal ki gën a def effet ci atum 2023 mooy Ousmane Sonko ndam li waa Sénégal ñoo ko ko dal di jox ki Ousmane Sonko moom gannaaw bi mu defee recours fële ca conseil constitutionnel ngir di sàkku ñu dal di koy dugal ci biir ñi nga xamante ci ni ñoo jug pour soppi réewum Sénégal mandataire am di wuyoo ci turu Maître Ciré Clédor gannaaw bi mu lancé mbir ne def na recours ngir Ousmane Sonko dal di koy laat ci biir conseil constitutionnel ngir ñu def ko mu nekk candidature ba tey ji man Sonko jotaguñu benn nofel ci biir conseil constitutionnel ñoo ngi teew teewlu boobee xabaar lu ñu ca am bokk ko ak Buzz Media TV mbirum Amadou Ba moom mi nga xam ne mooy yaakaaru benn bokk yaakaar ngir mu soppi doxalinu réewum Sénégal gannaaw sax yàgg na fi lool amuñ ci yaakaar mbirum Amadou Ba moom nee na dafa def recours ngir Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu dal di koy quitté ci ñi nga xam ne ñoo jikko pour soppi doxalinu Sénégal gannaaw biñ saytoo ay pareem daal di ne moom lépp jaar na yoon nan ko boole ci ñi nga xam ne ñoo jug pour soppi doxalinu réewum Sénégal Amadou Ba di sàkku waa conseil constitutionnel dal di réclamer kii di Bassirou Diomaye jaxaar Faye dal di koy génn ci ñu jug pour dal di doon candidature ba tey ji moom amadu Ba dal di nay def recours ñu dal di quitté képp koo xam ne da ngaa déposé woon ay parrain dal di wax ne kat da nga bëgg a doon candidat fële ca conseil constitutionnel ngir ñu dal di lay réclamer nga dal di génn moom amadu Ba li mu bëgg mooy moom kase mu doon candidat moom kase mu dal di dem xëccoo ji réewum Sénégal du fi amee loole la ñu ko dal di tontu moom Ousmane Sonko dal di to posté ci page Facebook am di wax Sénégal yi bu leen lijjanti menn mbir bu leen lijjanti dara lu dul fukki caatum 2024 projet bi ñu leen diggoon dal di ne Sonko cinquième président de la République du Sénégal taxawuñu ci dawuñ ci amul lenn lu ñuy rap rap di jox bon fel képp kuy patriotu waajal leen électeur ngeen dal di jël seen carte yi ngeen dal di soppi doxalinu réewum Sénégal du suñuy kàddu kàddu yi Ousmane Sonko mais Tafsir Kaledor di fàttali ne Ousmane Sonko ay mbiram da daan fexe ba nit ñi dal di ciy jëriñu Ousmane Sonko amul lenn lu muy defati fii ci réewum Sénégal ngir yéen ndaw ñi Ousmane Sonko lenn ko war muy tokk dal di jàpp njaamuram ñu dal di soppi doxalinu Sénégal jël réewum Sénégal teg ko ci loxol Ousmane Sonko sàkk loo ko pexe Ousmane Sonko nga bëgg mu soppi sam réew kàddu yi mee tax Siré Kaledor ñu taataan xabaar yi ba tey ji avec Buzz Media TV dooree ko ci mbirum Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw biñ kitee woon ay pareem dal di ne dafa dal di yàqu am mbir yu bëree bëri dafa am ay double waaye nag Ousmane Sonko gannaaw bi mu lancé mbir moo xamante ci nii fële ca réewum Sénégal waaye nag Ousmane Sonko di joxe bon rendez-vous képp kuy sénégal sénégalais ngir moom wax na ne daañu ko dal di dugal ci biir ñi nga xam ne ñoo jug pour soppi doxalin réewum Sénégal Amadou Ba gannaaw bi mu defee recours di sàkku état bu réewum Sénégal ñu dal di génne Bassirou Diomaye Diakhar Faye gannaaw bi ñu waxee na ne Ousmane Sonko nekkul ci fiche électorale bi conseil constitutionnel dal di jox dëgg njiital Pastef Ousmane Sonko file ci biir xabaar yi moom Ousmane Sonko daañu ko dugal ci ñuy jongante réewum Sénégal atum 2024 oui ou non ci biir xabaar yi daañu saytu lu ni mel Ousmane Sonko candidat la n'est pas candidat loole lépp daañu ko gën a saytu lépp luñ ci am bokk ko ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu fi la ci Buzz Media TV kàddu yi la fa kaa Ousmane Sonko mandataire bu Ousmane son mais tax Siré Clédor di joxe rendez-vous ci question yi nga xam ne daal dinañu koy jébbal waa conseil constitutionnel di leen laaj lu Ousmane Sonko def ba ngeen bañ koo dugal ci ñu jug pour soppi doxal leen réewum Sénégal Buzz Media TV wéy di leen jox dig daje ba ci kanam ak yeneen i xabaar bu leen fàtte yi Buzz abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa